Messieurs, c'est Jean-Michel Carnotte. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue sur ce nouveau temps de www.senclic.com. S'informer en temps réel où que vous soyez tey ñu ngi fi ci une rajo ñu fas yéene ngeen gis spécialement ci une rajo ngeen gis gis ngeen Dagwar gis ngeen Sermon gis ngeen Nelson Mandela mais li ci gën a neex mooy dañu am benn spécial boo xamante ne ñëpp koo xam moom booy de Kaolack moom booy de 2STV moom booy de Arobin e certainement su ma waxee moom booy de Arobin e vous allez comprendre que mooy Pape Sidy Ba Allez-y. Pour vous, vous ne pourrez pas dire bonjour, bonsoir à Birane. Pape Sidi Fall la ñu bett yi yow gis ngeen jërëjëf seen plateau bi gis nga Pape Sidi Fall ñu mu taw bro. yaa ma dégg. dafa am lu bees Pape Sidi Fall. ñu ngi gis ngeen rajo quoi. Pape Sidi Fall. origine FM Pape Sidi Fall digestive mais Pape Sidi Fall ci rajo. <laughs> yi rajo ah léegi moo xew yi rajo mooy bomb. yi rajo mooy bomb mais pourquoi yi rajo quoi. non mais je travaille ak 2S 2S mais bon am naa sama ay heure creuse yoo xam ne maa ko moom dama war a wàcc noppalu bu ma neexee aussi ma dikk yi rajo jàppale Boubacar parce que Boubacar sama grand la sama gain la ñu yàgg nekk ay comment di déggante di waxtaan si yu bëri yàlla def moo am matériel am boo xamante ni mu ngi koy door a ubbi donc on essaie de faire un vraiment gigantesque quoi. parce que mbër am na fi rajo politicien am na fi rajo oustaz am na fi rajo sëriñ am na fi rajo journaliste am na fi rajo mais maa ngi door a dégg animateur musique euh, les gens les plus banalisés de la société quoi bu am rajo donc il va falloir que ku nekk si ñun boo fekkee tu es animé de bonne foi nga ñëw jàpp si quoi. parce que donc sa arrivée sa arrivée rajo du du débouchement dara. bon oh, je continue à travailler la 2S. saa yu jàppee 2S gis nga may wax. maa ngi lay gis <laughs> maa ngi lay gis merci Pape ñu ngi lay remercier. gis ngeen suñu studio ya. waaw suñu eh, studio xool suñu studio dafa <laughs> eh, rajo boobu nekk si booru géej gi fii corniche bi ñoo leen dàqale.